sama tànk tey nag tànki jàmm ak salaam kese la malgré li fi jaar lépp mais doomu aadama ma bindoo noonu parce que nit nit kese la day kontaan day mer day xuloo dafay xeex mais li ñu romb lépp man fàtte naa ko parce que man xamna bu wer ci yow comme ni nga xamé ci man xamna bu baax ni sa xol bi kenn nekku ci ku dul man doo ma fekk fi barki demb ma tok ak sama nawle xamoo lan lañ toogee xamoo lan lañ séq man ak yow nga dugg ci ci bir kër gi ak sa dugg ba agressif bobu wan ma jikkoy rewanda bo xamanteni man daf ma sax dépasser du ma la sax nuyu xawma da nga tit xawma man la jaas def ngeen loo xam ni yéen ñëpp lay kil i preka sama doom dangeen koo jéem ray ci biiru yaayam di ko indil ay dem naa lépp xam naa léeb bi xoolale eh, ah, man maa la ko wax dinaa la ray ray koo xam dinaa ko ray